asalaamualeykum wa rahmatullah bokkum jullit dellu waat naa bëgg waxtaan ak yow incha allah waxtaan bii nag njortu naa lool ni man ak yow suñu ko bàyyee xel mën nañu jariñ bu baax incha allah euh, yow nag ci sa bopp lu ma la xam-xam-xam-xam-xam mënumaa xam sa biir sa biir yàlla rek a ko mën a xam loolu leer na waaye nag li ma yaakaar mooy du ñàkk nga am ay bàkkaar loolu moom yaakaar naa ko man nag xam naa sama bopp bu baax ku bari bàkkaar laa mhm. léegi nag man ak yow li wér mooy bëgg nañu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar nu ñuy def nu ñuy def est-ce que xam nga ne dafa am ay bàkkaar yu woyof maanaam yu ndaw donte lépp bàkkaar la waaye nag am na bàkkaar yu rëy lool yoo xam ni mën na juróom nit ki musiba yi àdduna ak àllaaxira xam nga loolu mhm. bàkkaar yu mag yi nag bokk na ci di jëfandikoo njaaloo loolu moom lu wér la nanga ko xam bu baax ma xam ko aywa nañu dem benn xadisa ngoo ñu jëlee ko ci abu hurayrata muslim ak buxaari yooyu yépp solo nañ bi abu hurayrata nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo leen nettali lu leen nettali nee na yonent bi daf ni am na benn jigéen boo xam ne lam daan liggéey mooy jaay boppam maanaam jigéen ji jigéen bi daf daan cagatoo ngeen bal ma ci kàddu gi dama bëgg mu leer dong ci ñun da daan cagatu maanaam day xëy suba ba ngoon di njaaloo loolu mooy liggéey loolu moom kenn sikk sàkkawul ni bàkkaar yu bari la te mag lool loolu na ko xam ma xam ko loolu soxna si di liggéey nee benn bés soxna si di dox ba gis benn xaj lu ñuy wax kal bu xaj nee xaj bi di appaat appaat yu metti soxna si jàpp ne xaj bi dafa mar dafa mar nee soxna si gis na ab teen waaye mënu caawut ndox soxna si di góor góorgóorlu di góorgóorlu ba wut ca ndox fexe ba jox ko xaj bi mu naan ba màndi xaj ba daw dem yenent bi nee na bi ko soxna si defee ci la ko yàlla sante moom soxna si ba noppi gërëm ko jëggal ko mboolee mi bàkkaaram allahu akbar mbokkum bi gis nga de kon man ak yow nañu def du ñàkk ñu gis ci situation boo xam ni mën nañoo dimbali nit ba mu naan benn chasse ndox yàlla mën nañu cee jéggal mën nañu cee gërëm xalaatal soxna sii daan mooy yàlla subaak ngoon guddeeg bëccëg jël ab xaj may ko ndox yàlla jéggal ko mboole mi bàkkaar yow nag mbokkum jullit imagineel maak yow buñ demoon ci benn daara yi alquran nga xam ne sëriñ daara bi alquran lay jàngale subaak ngoon di julli di jaamu yàlla ay dongo yu ndaw nekk ci daara ji lu mat fukki xale ñaar fukk ba téeméeri xale ñépp di jàng alquran subaak ngoon di julli di jaamu yàlla ñu ñu ñu fexe woon tey ba xëccal daara ji ndox ñu di ca naan ñaata yiw la mbokkum jullit lan la ñu mën a jural ci sunu dund wala imaginal ñu demoon ci camp ba ay militaire ñu ngi fa di aar réew mi ñu jënd ay chasse ndox yu bëree bëri yóbbul leen ñu naan ko benn journée ñaata jullit ñoo ci naan ak lan la ñu mën a jural wala ñu dem ca jàkka ja jënd leen ay chase ndox wala ay frigo bàyyi ko ci jàkka ji képp ku julli si naan ca rawatina bu dee Ramadan ku ñëw dog ca ñaata yiw lañ ci mën am mbokkum jullit kon day maak yow wëratuñoo xaar mukk di jooy naan yàlla duñu jéggal mën nañoo jéggal ci benn chasse ndox bu nu may sunu mbokkum jullit nañu ko bàyyi xel mbokkum jullit lii ma doon sama waxtaan ak yow wassalaamu aleykum wa